seen mbokk Mouhamadul Bachir si sunu jotaayu tafsir bi jële ñaanal mucc gu ànd ak xewal gu sax ak gu wér tey ñu war a tàmbalee ci suuratul Aadiyaat sunu borom subhaanahu wa taala mu ni bismillahi rahmaani rahim yàlla mu ne wala aadiyaati maa ngi gën ci fasu naaru góor yi nga xam ne xan dañuy nokkat ak nokki jamono buñ demee ba daw ba sonn li mu jubli loolu mooy fas yi xarekat yi di war waaye jullit ñi jamono bi nga xamee ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wa la ñu daan xare xam ne jamono boobu fas moo amoon aku gëlëm waaye li ëppoon li nit ñi di war di demee xare yi moo doon fas te umpale wu ñu ñun ñëpp ne buñ gisee fas bu doxee bu dawee ba sonn da ngay dégg ni muy ni muy nooyee nooyee boobu nga gis muy xëccu di xëccu wala boo tegee fas lu diis mu dem ba ca kanam mu sonn ni muy nooyee nooy gu métti googu loolu mooy dabax mooy nokkat googu nga xam ne fas gannaaw bu dawee ba sonn loolu lay nooyi. loolu yàlla lu mu bàyyi xel la waaye rawatina fas yéex jàmbaari xare yi daan war buñ dawee ba sonn nooy dañuy nooy yàlla di ko mel ni lu koy delloo njukkal ne maa ngi gën ci fasu naaru góor yi nokkat ak nopp fal muuriyaati yàlla nee na mu ngi gën ci fas yi nga xam ne nii dañuy daw di yéeg ci montagne yi xadaxan aku koccat koccat mooy taaj bu ñuy bu fas yi di yëg ci kaw xeer yi montagne yi seeni wey yi seeni tànk yi buy dóor ci xeer yi xeer yi di def ay ferñeenti safara takk takk yooyu muy def mooy koccat mooy xeer boo ñaari xeer buñ dajalante wala weñ bu dajalante ci xeer ba mu indi ferñeenti safara étincelle boobu muy jox mooy koccat ci wolof mu ne fal muuriyaati maa ngi gëñ ci tànku fas yooyu nga xam ne aji taxal la xaddaxan ci koccat fal muxiiraati maa ngi gëñ ci na fas yi nga xam ne ni aji yongaan lañu noon yi nga xam ne ni ñooy noonu ye jullit ñi di leen yongaan ba di leen tiital subhan ci suba xam nga fas yi buñ daan na euh, jàmbaari xare yi yu lit di islaam yi waxtu wu nekk song nañ ko noonu islaam waxtu wu ne daan nañ ko song noonu jullit ñi di leen ko di leen ci xare ñoom ñii bëccëg ñii guddi ñii suba teel fas yi nga xam ne nii nag dañoo dégg ndigal ba bu ñuy attaqué guddi xam nga fas suba teel buy buy yongaan day naan tekk nekk ci àll ne tekk ba noon bi dana ñëw ba agsi si moom te du gis ne ndek am na ku ko doon waafu waafu googu ñuy waafu noon yi ba xam ne mën nga dox ba yegsi si ñoom te doo leen yëg te fekk yaa ngi war fas fas yooyu nga xam ne nii dañoo dañoo dañ leen seet tàggat ba ñu mën ko te bu ñuy dugg si dëkk yi itam mën nañ dugg ba yegg si buntu dëkk bi te doo dégg seen bruit ni ñu leen tàggatee tàggat boobu moom lay junj fii ne fal mughiraati ak fas yi nga xam ne way yongaan lañu subhan si suba fa asar na ñuy jeqi bihi sa daw ga ñuy daw naqaan ak pënd fas yi nga xam ne bu ñuy daw da ngay gis pënd bay jóg ca ñoom ñëpp àndandoo di daw nag di song li nga xam ne nii mooy dëkk yi nga xam ne nii ay yéefeer ñoo fa nekkoon di li ñu doon leen song ngir def li nga xam ne mooy samb fa drapeau bi lislaam fa wasat na ñuy digale ñuy taqale bixii ca daw ga ñuy daw jamaan akum mbooloo ban mbooloo la ñuy taqale mboolee ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla mbooloo muñ fekk moo xam ne nii ay caaxaana fa nekk akuk yéeféer akuk weddi yàlla akuk nooneel ñu fexe ba tàqale ñu gëm yàlla ak ñu gëmul yàlla képp mbooloo boo xam ne nii bépp mbooloo bu mu doon boo xam ne mu ngi woon ci àdduna te mbooloo ma ay weddi yàlla lañ fa nekkoon ñu fexe ba tàqale leen def leen ñu gëm yàlla ñu gëmul yàlla ñu fexe leen ba ba ba noot leen lan la yàlla di gëñ gëñ na ci fas ay façon fas yi njàmbarte gi ñuy def ak jàmbaar yi yéeg ci seen kow ak anamu song giñ dan songee noonu jullit yi ak dëkk yi ak dëkk yi niñ leen daan songee ne fas yi nga xam dañuy nokkat fas yi yéeg ci montagne yi ba ba xeer yi di tàkk fas yi nga xam ne par suba la ñuy départ di son di yongaan euh, suba teel gi ak fas yi nga xam ne bu ñuy daw si da ngay gis pënd bi fas yi nga xam ne ni bu ñëwee di xeex dañuy fexe ba dañuy ànd boole dañuy dañoo ngay war ba mën a tàqale ñi gëm yàlla ak ñi gëmul yàlla lan la yàlla diggañ mooy innal insaana naka doomu aadama li rabbihi si wàllu boromam li rabbihi ñaal na boromam lakanuudun aji sëkk jëf la mun a aj weddi xewal lañ koy lay firi waaye mooy sëkk jëf yàlla nee na gëñ naa ne nit gëñ naa li yëpp ne nit ku mën a weddi xewal la waaye yàlla juumul jaawalewul bu ñu xoolee kenn ku nekk si ni ko yàlla bindee ak li ko yàlla defal si xéwal ak bu xëyee suba ba ngoon jot li muy jàmbat kon bu yàlla ne yéen ku mën a sëkk jëf ngeen kon yàlla wax na dëgg subhanahu wa taala xoolal nit ki yeewu na sëpp tànkam dara méttiwu ko mu fudd daldi sangu julli daldi génn ne alhamdulillahi rabbil alamin léeg-léeg sax du ko wax dara jotu ko mu dox ba naaj rek léeg-léeg mu am fukki dërëm jëndee ko mburu ak dute daal di naan bu ko defee toog ba ci kanam mu mer mu ne man lan laa def yàlla léeg-léeg nga gis mu mel ni benn nit romb ko am xaalis mu mer ba mujj gi jàpp ne moom yàlla da koo toroxal kee dafa am te moo nekk am de bu toppoon ka am mën naa am sax moom moo gën a am tawféex ka nga xam ne nii moom lay wax ne moo am yàlla may na la gi yaram may la jàmm may la nga tëdd nelaw amoo njaqare amoo mettit ba nga yeewu ci jàmm di nooyi normal di xoole normal di dox te dara jot la nga ne nag yàlla daf maa seetaan yàlla mu ne yéen a mën a sëkk jëf li ma la defal si xéwal tey boo ko bëggoon a jënd léeg-léeg nga gis koo xam ne nii day ñaan wutal ma ñaanal ma mu am liggéey ñaanal ma mu am liggéey ñu ñaanal ko mu liggéey ba commencé fayee ko salaire mu ne waaye man salaire bi may fay dafa tuuti salaire bi may fay dafa tuuti lii boo si jëndee boo si joxee dépense rek wala mënoo si bay fay mënoo si fay courant di daal ay salaire yi nii rek ay salaire kii yi nii ay salaire cent mille salaire deux cent mille allahu akbar yàlla mu ne yéen a mën a sëkk jëf lépp lu ngeen daw ba agsi fa rek fàtte ngeen la ngeen am léegi la ngeen a ngi séntu la ca kaw ba bu ngeen di dem ba ba noonu ngeen koy defee di ko defee di ko defee dajale gi yëpp te lépp lu ngeen am rek xeeb ngeen la am bu ngeen ko demee bu ngeen ko sàkkoo ba jot ko rek xeeb ngeen ko yéen a ngi wut lu ngeen sa dolli yéen nit yéen a mën a sëkk jëf innal insaana naka doomu aadama li rabbihi jëmale si boromam la ka nuudun aji wedd aji weddi xewal la ak mën a weddi xewal wa innahu te loo moom nit moom ala zalika si lii ma lay wax ne dafa mën a nëbb weddi xewal la shahidun aji xam la ko moom xam na ne li ma koy wax dëgg la nit ku ne xam na ni dafa mën a weddi xewal luñ ko defal si lu baax mu xeeb ko di sàkku leneen wa innahu naka doomu aadama ba tey li xubbil xayri bëgg alal la shadidun aji tar la si dafa bëgg am am bëgg am am ba jar koo jaay ba jaral koo jaay jaay ngoram dafa bëgg alal ba jaral ko sibooru dafa bëgg alal sax ba da koy weddiloo day tax muy yéex a julli am ñoo xam ne bëgg alal di sàkku alal daf leen di jaral ba mujj gi ñuy jaay seen diine ji wa innahu naka nit li hubbil xayri ngir bëgg am am la shadidun aji tarlas daf ko dem ba daf ko ëpp doole la yaalamu man ndax moom daa xamul ne isa bu asira buñ demee ba dekkal ko buñ démé ba dekkal ma la nga xamné fil qubóori moo nekk ci bameli ndax dafa xamul ne lii nii danañ ko ko wax sa buñ démé ba dekkal ko bu démé ba taxaw yowmal khiyam di ñu ko defulun ci xéwal yépp danañ ko ko wan gis ko muy xéwal gu yaato yaato yaatu bu pare wan ko ne ko nak muso doylu afala ya'lam man dafa xamul ne isa bonsida sa buñ dékkalé ma la nga xamné fil qubóor mu ngi si bàmmeel wa khusila ñu amal moo muhassila ñu amal bi maanaa ñu génne maa la nga xam ne fi suduuri moo nekkoon si dënn yi li nit ñi nekk dencoon si xel yi tey wax leneen lu bokkut ak li xam loolu yëpp danañ ko mës a leerali nee su boobaa inna rabbahum naka seen borom bihim si lii mu leen wax yow ma isin boobu la bés di yowmal xiyaam la xabiirun aji nettali la leen ko dana leen ko nettali yéen ñëpp ba ngeen xam ko waaye la xabiiru aji dañ kumpale si bi maanaa xam na li ngeen nëbb ak li ngeen feeñal yépp waaye daf leen toppul wala boog daf leen di xaaree bis ba saaru aadiyaat jeex na allahuma salli ala muhammad ñu dem ca ba des